bu njëkk rek groupement CONAS mu daanu ñu def euh, INOSES COPESES mu daanu ñu def ZES na bàyyi boobu bis bi bis bi ñuy defee ZES Ousmane Diagne jiite man de ñu maa jël si garadaka indi ma central bii ñu ne lu tax signé woo ma ne ko man lu may signé Ousmane Diagne xamuma sax kuy sol mbubb Ousmane Diagne xamu ko ma ne ko man giri seen giri bii laa gën a xam Ousmane Diagne du mhm. balaa taabal am ramassé nañ ma fii ba sonn. Ah léegi nag. man am naa benn Abdou Diouf xool ndax. waaw loolu laay wax. dinaa xam ne dem na at bu nekk ma indi rapport. Mhm. secrétaire bi maa ngi gëj mu ngi dund. Mhm. ngi cité Faye Sall. ma jox ko rapport bi. bu ñu ma bëggoo dellee jox isaas ma bañ. bu ñu ma bëggee delloo dara ma dem benn bi ma damay ànd ku wax Serigne Dia Ndongo mu ngi conseiller économique yi léegi. beneen yoon bi maa ngi ànd ku ñuy wax Moustapha Lo. mu ngi ci conseiller Macky Sall. troisième bi maa ngi ak ku ànd ku ñuy wax Ibrahima Lo loolu yëpp tax ma ànd ak ñoom. pour ñu nekk seede. ma seet ñaata la ñu béy. ñaata la ñu am. su ma ñëwee ma xabaar ne Sénégal béyul du dundal Sénégal ñetti weer. wax naa ko fi kañ. waaw ba fan yee paase. barki démb maa ngi naan Sénégal bu ñu tëjee poor bi ñetti weer ñun ñëpp ñu dee. lenn nag laa ci xam loolu sax tuuti na da nga cee xamul. Mhm. xam nga li tax ñoom ceebu sayet bi mu commencé ak léegi parce que dañuy am indépendance ñu commencé di béy ceebu waalo. Mhm. waaye suñu béy ñuy wax yëpp dañuy wax rek béyuñu mu jëne bu ñu ma gisee dañuy defee ne man agent secret laa buy liggéey pour gouvernement bi ma ne ko man suñu bitig laay jaay. Mhm. joxuñu ma isaas fayuñu ma sol. dañ ma dañ maa commandé comme que ñooy président de la république. ma ñëw xool waaye nag béyu leen gum li doy. Mhm. mais dañuy béy léegi cent sacs soo ñëwee ñu ne la 3000 sacs a ngi nii. Mhm. a ah, xamuñu nag ñun wàññi lañu ñu mun. man bi ñuy yelwaan nekk taalibe di yelwaan euh, suñu jógee suñ dëkk jal ñu ngi gën a yàgg tuuti gawdal bari nañu faa taalibe bu ñu jógee gawdal ñëw fu ñu wax ngi ji nee nañu président foofu ay waajuram dëkk dëkk waaye ñooñu ñun jàngkat yi jàngkat alxuraan yi dañu xamanteel boo nee jéew laa sant jàllaa dëkk dañu lay xool beneen but bon ñu jëw romb foofu romb saadal dem euh, romb wu dur dem saadal dem kundel dem maatam xam xëjuñu duñ maatam dañoo bari ay taalibe yu bari lañu léegi nag bi ma seetee ne béyuñu mhm. su ma waxee bayuñu ma xam nag day naqari suma mbokk yi mhm. benn ba waa ji moo musa béy foofu lu am dañ am lu am solo jéggi ma jéggi ni di dem bay ci pertinent boobu Abdou Diouf la mu ne am naa ceeb bu bari su bokkar ñëwee mën naa ko kii ma dem seet lu mu am ndar lu mu am lisator lu mu am eh, eh, eh, be kii be ba ba xaay lu mu am yëpp ma seet ma ne ko bon léegi oto boo indi balaa muy wàcce ma fay la ma signé koy ñu ngi ko wax kat kata te dafa jindoon li nit yi waaye awma sax sept cent tonnes loolu moom indi ci ceeb waaye daaw ma jaay ceeb mm. man mbokk laa xame lay ma xame dem fekk kilo sumbul di jar quatre cent quinze mm. ma commencé indi mbokk bee kilo bi dellu cent cinquante tubaab yi yëpp ñu waa Garaamule fekk nañu ma suma kër wax ma lu ne waa Santinaa fekk nañu xam nañu ma it sa feew suma kër fekk nañu ma fa. Mhm. waaye waaye jëm bu borom mbubb nag konti wu leen ko nit. Mhm. waaye xam nga li ma gën a jaaxal bu ñuy di ngente ngeen wax ba bàyyi borom mbubb mu wax. bu ñuy sàkk seet ñu bay borom mbubb mu wax. Mhm. waaye nag bu loolu waasee comme que yëbi tubaab yi tubaab yi dañu ñooy nax rek. duñu la woon mukk loolu amal yi maam euh, ñun 1957 bi ngay wax ne fii nga doon liggéeyee boobu fekk na moom xalaatuñu judd. waaw. Euh, waaye dafa am loo xam ne loolu la ñuy wax naan mujj gu rafet yow ci sa àdduna dangaa jël sa àdduna yépp nga yemale ko ci jàng ak liggéey bu ñu dégloo histoire Bocar Samba Dièye établissement bi ñu ci bari dañu dégg ci rajo bi ne ceeb bi import beeg export bi waaye ku gën a jege sa histoire ba xeeñtu ko dafay dégg ne ba nga jugee ca daara ja defoo ci diggante bi dara lu dul liggéey bi nga dee tuut tànk ba léegi yaa ngi ci meneebaru yaa ngi ci jaay mu ndaw yor boutique jënd jaay góorgóorlu di liggéey ba nga dee tuut tànk ba léegi yàlla dimbali la nga yegg si ba ci apposé maanaam nga dem ba bokk ci milliardaires yi wala ki ñuy joxoñ di mën a di ko mën a lim ci royuwaayu réew mi maanaam nga dem ba nekk référence ci ndaw réew mi bu ñu la xoolee mujjantal gi ak ni la état bi sàgganee dañu naan ndax ñun lii ëllëg bu ñu rayee suñu bopp ba yegg si fi nga yegg si mbaa ñu bëgg a yegg si fi nga yegg si état bi du indi gàllankoor ci yenn coono yi nga xam ne yaa ngi koy traversé guddi gi ndax ku ci nekk yëg na ni danga am jafe-jafe ak banque mhm. waa état bi ñoom fan lañ la teg ak nan lañ la taxawoo parce que yow suñu alal nga suñu koom nga doomu Sénégal nga fii nga amee li nga am lépp fii nga ko góor góorgóorloo fii nga ko liggéeyee génnoo moodu moodu jiwoo te lépp ci réew mi nga ko liggéeyee boo demee ba am ay jafe-jafe ñeneen nit jóge ci yeneen réew ñëw di la jaay doole état bi yépp banque seeni yoxo ci mbir mi dafay jaaxal ñépp maam état bi nan lañ la taxawoo est-ce que ñu ngi lay jàppale euh, waaw man maa ngi sant yàlla di leen sant euh, man dama jëkk a toog ci rajo ci rajo avant quatre-vingt-huit bi may am problème ak banque yi ma jëkk a gis <coughs> suma notaire bi nga xam ne su may jëndee kër ci moom lay jënd moom ci moom lay aaw ma ne ko dama bëgg bàyyi commerce parce que am naa ci ëpp cinquante ans màggat na mu ni ma boo ko defee yoon toppala Moustapha Ndiaye mu ne ah, yoon topp ma bi may bi may commencé fekkee wuñu ko de mm-hmm. ma dem ci rajo Sud nee nañ banda yaa ngi faa bay léegi ma ne leen euh, bo parce que boobu ñoom Latif Coulibaly ak ki mu nekkaloon kii moomoon rajo bi mm-hmm. bu ñu amee kii rek ñu wooma ma waxal leen Babacar Babacar ñu woo ma ma waxal leen ça fait nit commencé ma xam waaye man bi ma bàyyee jàng alquran sàmmal naa suñu papa cinq ans mm-hmm. nekk agabaali bi ma bàyyee agabaali ñu xeex ak man ma daal di dugg Mali di nappa jën nekk fa six riir su may bokk yàlla def ma joxe tabsir ka ma ñëw Bakel am ku ji gis foofu dem wax suñu papa ñu mu fe fekk ginnaa ñeme liggéey lu ëpp lu ma ñeme woon bi ma nekkee ci ndongo yi parce que ndongo bi bari nañu baraay boo xam ne soo feñaagee yi kenn du ko xam sumu papa am na ñi mu yoroon foofu ay ay jaam mu ne yéen ñëpp naa leen kii rek ak man dana doy. léegi bi nga ñëwee seen rajo bi wax ne damay bàyyi après. bu ci laa nekk. Mm. léegi nag lu ma waxee dama ñu wooma primature ñu ne ma bul bàyyi boo bàyyee danañ joteet yow boobu Abdoulaye Wade mooy président moo tax xam nga mel na na ñoo ma samp pour ñu mun maa daaneel te man seetlu naa bi ñu amee indépendant ba léegi boo nekkee ci post ay ministère ak yooyu yàlla na ko yàlla yërëm Iba Der bi mu ne damay démissionné dañoo bañ ñu toog ba ay weer ba ñu xam ne am na ci moom buntu ñu bu ma xumu daanu mm-hmm. ah, dañoo defe ne ku jàngul tubaab xamul dara waaye ñun ci suñu bopp dañuy jàng jàng jàpp ne euh, jàng tubaab ku ñu ku ñu utiliser la rek la. léegi bi nga ñëwee primature. kenn xamul xam nga nit ñemewul sëriñam. si nit ñemewul sëriñam. comme que tubaab mooy seen sëriñ ñemewuñu ko. léegi nag man bi ma nee damay bàyyi ñu aay ma ma continuer indi fukki bato ak juróom. ku bugg a jàmm gouvernement gouvernement xëjul ci miskin ci laa commencé am problème ndekete ñoom ñu ngi wut buntu fu ñu may dugalee. ci réew mi nga dëkk. te bi ñu koy jàpp mbedd bi li jor jóge boori kër Serigne Abdou pale bi ken mu traversé dul gibiri diggante sare te lu ci ëpp ay tukulóor lañu te Mamadou Dia nee nañu tuk papam tukulóor la Mamadou Dia papam rek moo nekk tukulóor waaye Mamadou Dia nag ñu bëri. dañoo xamul. léegi nu nu problème bi commencé papa rapidement. problème fu mu commencé. problème bi fan la commencé. banque yi commencé commencé wuñ ci banque bi. fu commencé. parce que banque bi comme que man dem naa be am sañ-sañ. Mhm. toog ci rajo ma ne ku mu amal bor ñëwal. Mhm. banque bi ñëwul xam na ni amaluma leen. Mhm. li indi problème bi kay. dañu dem ba duggante ak ñoom. ba am bunt fu ñuy téye. xam nga nit boo koy seet booy nga am fu nga téye. Euh, xam nga day naqari deret mm-hmm. waaye man banque bi mm-hmm. banque yi mm-hmm. amul benn banque bu ma attaqué cinquante huit mu ne amal naa ko xaalis te man bi ma ubbi compte bu mali tasee balaa ñu àgg xaay bi ñu rombee fu ñu wax yaaginne boo jogee kii diri gaar bu mag yaaginne la rek boo jógee yaaginne saame boo jogee saame xaay balaa ñu àgg xaay lañ wax ne dañuy soppi seen xaalis ñi ma àndaloon di liggéey liggéey tubaab ñu woo ma ñu ne ah malien soppi seen xaalis kon demal ubbi crédit lyonnais moom laa jëkk ubbi ci banque. fekk 1958 nga am compte bancaire. waaw mooy bi ñu ah, déedéet déedéet mooy bu Mali tese Mali mu ngi tese quatre vingt et mhm. xam nga Mali fédération Mali euh, ci euh, kii la 1960 la. Mhm. mooy fédération Mali. Mhm. Modibo Keïta jiite.